asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina bokk yi dëkke Touba kàddu ko bàyyi ko ci daayira muxadamatul xidma jóge Muntaxa ñuy xam lig tabaski gi fas nañ ko yéene amal euh, bu juróom-ñeenti waxtu tegalee fanweeri minute mu di neuf heures et demi kon ñi ngi xamal mbooleem ñi dëkke Touba ak li ko wër ne képp koo xam ne bëgg ngaa julli ji ci jumaa yu mag ja neuf heures demi na la fa fekk loolu mooy kàddu yi bàyyi ko ci daayira Muxaddamatul Xidma eh, jóge ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha jëm ci mboolem taalibe yi ak dëkkandoo yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.